bon dama koy suivre parce que actualité bi quand même la plupart est relayée dans Facebook euh, dans Twitter Instagram ak yëpp c'est vrai que day jël temps peut-être surtout au plan professionnel boo naree concentré wu sa liggéey mais des fois benn moment surtout boo wàccee ngoon si da ngay def euh, le tour de l'actualité sur les réseaux sociaux mhm. et c'est à la mode je pense qu'on doit s'adapter également mais yow yaay suivre sa bop say page dama koy suivre mais en même temps am na ay ñu koy gérer. d'accord mais des fois aussi il faut ngay xool lu ñuy dugal sa page lan la. waaw mhm. même les textes aussi il faut toujours faire relire les textes. parce mhm. que publication dafa doy waar loo xam boo ko dugalee plus de dix mille personnes dugal ko suivre ko. Mhm. il faut contrôler la qualité. oui. en tout cas euh, euh, c'est bien de de de le dire. Euh, gis ngeen baat bi nag nu mu teeyee nii <laughs> voilà <laughs>